li ngay def yàlla dana sakk koo xam ne danga nga ko ragal nañ leen waxante dëgg te yàlla tax nañ leen waxante dëgg fii ku fi def lu rafet dañ lay sant moo tax ma sant waa wan di leen gërëm di leen wax ne gars yi roy leen ci Tiwaawan roy leen ci taalibe cheikh yi nga xam ne ñoo nekk Tiwaawan parce que respecté nañ loo xam ne nii barke alxuraani karim histoire dana ñëw bés répété dëggal Tiwaawan parce que respecté nañ loo xam ne lu am solo la ñun far man taalibe bàyyi laa mais farfarloowu ma yàlla mooy sama borom su ma gisee ku def dëgg ak ku def lu dul dëgg damay taxaw ma ne li nga def tegoo ko ci dëgg tegoo ko ci yoon su ma gisee ku def dëgg ma taxaw na li nga def dëgg la te waawan liñ def dafa nekk dëgg te liñ def loolooy lislaam loolooy lislaam te te waawan liñ def amul kenn ku mën a dévier li te waawan def barke alxuraani kër amul kenn bu mën a indi addis wala aaya bu wedd li tiwaawan def parce que feebar su duggee ci dëkk dañoo war a arrêté jumaa yi ñu def nodd yi parce que feebar bi dajaloo bañ day wàlle tiwaawan liñ def loolu lislaam la tawxid la loolu ngor la loolu diine la loolu patriotisme la bëgg sa réew la barke rasulullah mais maa ngi dégg ay nit yu naan dañ koy bind ci histoire ñi ne lan la ñuy bind ci histoire ñi ne keroog ba Macky Sall teree julli jumaa ñi ne ñoom ñoo xuus dem julli ji waaw waaw dañ ko bind histoire waaye soo ko bindee histoire ndaw gàcca ndaw gàcca ndaw gàcca lu tax Macky Sall tere istu lan moo tax Macky Sall tere julli jumaa bi da koy bindaal ci histoire bi parce que coronavirus moo am ci réew mi di rey Sénégalais di dal doomu Sénégalais Macky Sall taxaw ay dajaloo bi dañ koy wax de parce que dañuy bañ ëllëg mu nekk ay fen parce que genre gànna mercenaires yi dañ see nekk waaw suñ demee ba suñ doom yi judduwaat ñoom dañuy falsifier histoire di ko nettalee nu leen neexee moo tax ma def live bi pour wax pour bés bu ñu waxee histoire boobu dana am suñ doom yoo xam ne danañ dugg ci internet bi lokkati tamit samay wax ñi xam ne wax jii la du histoire képp ku ko bind histoire bind nga histoire u kàcc bi nga ay fen hypocrite ngay bind parce que dañoo aaye ne bu julli jumaa bu leen dem ci jumaa ji ndax coronavirus bi day walle parce que day bañ dajaloo yow nga jóge ko ndakaaru dem ba Touba di ndamu di yuuxu ca kaw naan waaw waaw sëñ bi rek a fi nekk parce que jumaa yëpp tëj nañ ñëpp tëj nañ nañ ko bindee histoire parce que gaa yëpp tëj nañ sa waay loolu loolu du ndam loolu du histoire parce que yow li ngay wax noonu tegoo ko fenn lu dul dangaa bañ yeneen tarixa yi parce que koo dégg muy wax loolu su sañoon yeneen tarixa yëpp ay dee moom rek mu des fi parce que yéene wut ñeneen ñi jàmm moom boppam la bëgg muy yëkkatiku ñeneen ñi fay Sénégal looloo fi nekk ku ci nekk da ngaa bëgg yow yaay dem ci kaw ñi si des wàcc ci suuf te pourtant Serigne Touba maam Maodo Baye Niass maam Limaamu ay wóllëre la ñu woon mosuñoo mosoo dem ci xasida maam Maodo bu muy bindee di xeex Serigne Touba wala wala Baye di contre Serigne Touba amul kenn ku bind di contre sa morom. ñoom dañoo bëggante woon xam ne ci toolob yàlla bi lañ nekk di bay kii di bay jaar ni kii di bay jaar ni kii di bay jaar ni ñu bokk diine ji bokk yàlla bokk yonantu bi bokk alxuraan ji yow taalibe bi nga xam ne nag yow jàngoo jongoo kenn xamu la xamoo fooy taxaw nga jëlee sa oto Dakar ah parce que te Tiwaawan wuñ tay rek ah Dakar wuñ tay rek nga jël sa oto paas dem ba Touba taxaw ca digg bayaal ba naan noo ñun rek fi julli ñun rek a fi nekk parce que fii di jaxase loo xam ne bokkul ba pare naan nañ ko bind histoire histoire su ñëwee dana la gàccal parce que yow mi dajaloo ba gars yi wàllante coronavirus feebar bi di gën a yokk ca dëkk ba su histoire ñëwee nga am rus nga gàcca billaahi da nga rus su histoire ñëwee loolu du histoire loolu ku ko bind doo bindoo histoire tiwaawan liñ def li tiwaawan def mooy dëgg barke alxuraani karim li tiwaawan def mooy dëgg kenn gàccalul leen waaw waaw barke alxuraani karim waaw te ñu ngi nag dañuy continuer di live waaw ni ngeen di gën a defee ñuy gën a wax ci lu amul sikki sàkk billahi wallahi talaay Sénégal moo ñu gën a lépp waaw Sénégal gi duñ seetaan muy yàqu suñu Sénégal gi duñ seetaan ay intérêt personnel lu nit di ko yàq gis nga Sénégal foog ñu nekk ay sénégalais foog ñu dun ay sénégalais Macky Sall jëlal sa responsabilité Macky Sall taxaw amal taxawaay ci réew mi. gis nga sëriñ si moomuñu réew mi dañoo bokk ci réew mi comme ni ma fi bokkee ak ni nga fi bokkee loolu rek a leen boole ci réew mi moomuñ fi dara waaw lislaam dugg na fi ba am ñett téeméeri at sëriñ yi soog a judd soog a nekk fii di woote sëriñ Tuubaa lislaam